aywa de quoi est-il non euh, tey nag dañuy doxantu ci diwaanu Ndar Géej euh, foofu nag fi ñu leen di euh, dem lu leen ko wax mais daal jàpp leen ni am na sax benn parc national et puis am na histoire parce que saa yu ñu ko bu ñu tuddee la brèche muy bël beeg yooyu askan wi du ko tudd lu bëree bëri Ousseynou Diop moom ngeen di gis moom la ñuy fekk ci diwaanu Ndar Géej Ousseynou nuyu naa la tey lan nga indil téléspectateurs yi ci de quoi il non. langue de barbarie langue de barbarie tur bi dafa nekk loo xamante ni wër na àdduna bi yëpp ñu ci bare di laaj euh, lan mooy langue de barbarie euh, nit ñi itam di ko dégg ci xamuñu lan lay tekki moo tax tey jile ñu daal di dem euh, seeti Maxu Seen xam-xamam màcc na jëm ci wàllu cosaanu Ndar rawatina cosaanu langue de barbarie ñu dem seeti ko mu xam leenu lan mooy langue de barbarie macha allah. de quoi est euh, maanaam tur bi lan lay ëmb langue de barbarie la ñuy wax tey euh, daal di fekki ki nga xamante ni mooy Maxu Seen ku ne xam na ko ci diwaan Ndar Géej xam-xamam màcc na jëm ci wàllu langue de barbarie fii la bu fekk baax Maxu ñu lay nuyu gannaaw bu ñu la nuyoo langue de barbarie tekkil na ko. langue de barbarie si sunu cosaanu maam yi langue de berber la tudd. ndax naar yi nga xam ni ay naaru berber lañu dañu ñëwoon fii nu bokk ak ñoom dëkkuwaay bi waaye nag dañu fi teel a fekk si ndax bi ñu jógee fu ñuy wax ajji jaar xomaak jaar jago njaago tey ay booyo deegar yépp ba egsi fii Guet Ndar mooy fii soudanais bi waxoon ni ñoom bi fi naaru marabitun yooyu ñëwee fekk nañu egg nañu ba fi dex gi tàmbalee dugg ci géej gi mais ñun suñu ay maam lañu fi fekkoon tay lu ñëw bi nag demoon ca barak ba euh, seeti leen barak ba nag ku ne xam na ni euh, mooy bërëb bi nga xamante ni euh, yéen Ndar ak itam Langue de Barbarie lu ci bari seeni ay mag foofee la toog di waxtaane lépp loo xamante ni soxal na lii di Langue de Barbarie ñu dem seeti leen. gi moo ko seex ak dex gi mu di zone boo xamante ni boo seetee ci largeur bi longueur bi yëpp nekk na vingt quatre kilomètres vingt quatre kilomètres alors bi di deux cent cinquante mètres à peu près waaye boo seetee nag ñun fi ñu partie bi ñu dëkkee mu di peut-être hydrobase ba ba gox mbaaj xëy na yëpp boo ko dee seet du passé huit kilomètres sept à waaw loolu nag li muy wone mooy dafa bare partie boo xamante ni amul dëkkuwaay. waaye fas yi bi bi am dëkkuwaay nga xamante ni mooy mooy diggante boobu nekk à peu près une cinquantaine de mille de de d'habitants loolu dafay wane ni densité bi am na am na solo lool. langue de Barbarie am histoire ci Saint-Louis moo di mën nañu wax ni wala boog histoire li mu génne moo di langue de Barbarie portugais yi découvrir nañu ko ñaari siècle avant que ñuy découvrir Saint-Louis en tant que tel c'est-à-dire en 1640 langue de Barbarie découvrir nañu ko. te xam nga Saint-Louis français yi ñu ngi ko fondé en 1659 la veut dire que doon euh, langue de barbarie am na histoire sore na lool ci ci Guet Ndar astafurlah ci ci saint alors li fi li fi am nag ci wàllu dëkkuwaay bi mooy nit ñi dañu dëkk dëkku en en communauté alors am benn pratiquement benn métier muy muy muy pêche bi. ba dem na bu demee su demee yaay am itam euh, benn diine pratiquement muy muy lislaam loolu yàgg fi lool boo seetee quartier bu mel na Gendar nga mën wax peut être dans le Sénégal wala feneen sax fu du Sénégal muy peut être le seul quartier boo xamante ni doo fi dugg kër boo xamante ni beneen diine ma nga fa budul budul budul musulman kooku cela veut dire que enraciné na li tax loolu nag mooy population yi nga xam ne ñoom ñoo jëkk taxawal langue de barbarie ñoo fi jëkk ñëw ñu ngi jógee en Arabie a aji aji lañu jóge c'est des les muhajirin wallan saar loolu moo tax bay alors euh, ñoom ñu topp booru géej gi di ko topp jaar booru njaago bay ñëw ba ñëw gendar euh, loolu moo tax bay ñoom ñoom les premières populations yoo xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo nekk à Saint-Louis. langue de barbarie moo ëmb kart yi nga xamante ni mooy Gendar Santhiaba Goxu Mbaaj ak Hydrobase ci taar taarix sax nee nañu dem nan ba fële nga xamante ni mooy njaago mu nekk nag gox boo xamante ni jamono jile ay nappakat yu bare ñoo fi dëkk. di daan seen doole di ay jàmbaar fàq kon ñi nga xamante ni xamuñu woon langue de barbarie lii mooy langue de barbarie aywa ñu jaajëfal bu baax Ousseynou Diop waxoon naa leen euh, ne euh, élément euh, document exclusif la leen indil mu jëm ci langue de barbarie muy nag un lieu boo xam ne ni mu ko waxee portugais ñoo ko découvrir deux siècles avant ñuy découvrir Saint-Louis tey jàng nañu jàngate nañ ci histoire Malick Thiandou. waaw jàngati nañ ci parce que léegi léegi nga gis gars yi di la laaj nen ak ginaar ba moo ci jiitu. Mm-hmm. donc tey xam nañu ni au moins langue de barbarie moom moo jiitu Ndar. Mm-hmm. moom la ñu njëkk a découvrir dëkk bi ci boppam. Mm-hmm. mais mu nekk barab bu nga xamante ni dafa bokk ci euh, euh, xam nga Ndar dafay dëkku histoire. Mhm. dëkku politique. mais dëkk tourisme aussi. donc langue de barbarie bokk na ci li nga xam ne mooy taaru Ndar géej. daf mhm. koy daf koy génne. Mhm. mais aussi bokk na ci li nga xam ne touristes yi bu ñu ñëwee dañuy dem di ko visiter ndax boo xoolee ci langue de barbarie dafa am ay poche yu nga xam ne ay îles yu ndaw lañu. îles yu ndaw yooyu ci la le parc ornithologique maanaam fi euh, fi euh, picc yi les oiseaux migrateurs. boo demee foofu pratiquement c'est l'un des plus euh, fi nekk entre avril et octobre. boo fa demee da ngay gis xeetu njanaaw bu nekk. Euh, ñu ñëw fa dal fa nen fa. affaire yu mel noonu. donc boo fa demee aussi da ngay jël gaal. Euh, visiter et puis li nga doon wax léegi. Euh, mooy bël ah waaw mooy mooy fa nga xam ne la brèche oh, la brèche mhm. nga xam ne géej gi mhm. ak ak dex gi mhm. dañuy fóonante te seeni ndox duñu jaxasoo mu nekk lu nga xamante ni lu extraordinaire la. Mm. ñaari ndox yi nuroowuñu couleur. Mm. ñaari ndox yi dañuy dem ba fóonante. Mm. waaye jamais ñu jaxasoo. foofu nag euh, euh, maanaam ku fa traversé wul. bokkoo ci góor yàlla yi. mais la fa des ci ay doomu aadama bëri na aussi macha allah et xam nga nag buñ nee buñ nee ndar hmm. wax aussi hmm. euh, li nga xam ne moom mooy hmm. euh, hydrobase nga xam ne fa la ñu daan daje euh, surtout ci jamono ju nga xam ni ay cheikh 15 août ñoom cheikh ak yooyu jóge Ndakaaru fu ne dem fa feetu ci très bien aywa Marcel rapidement laata ñuy dem ci yéenekaay yi waaw langue de barbarie bon comme d'habitude je tiens déjà à féliciter le travail exceptionnel de de Ousseynou Diop comme d'habitude comme tous correspondant ñuy defal euh, genre liggéey bu mel nii mhm. euh, langue de barbarie yàgg nañ ko dégg euh, et puis musuñ ko xam donc c'est ça le concept même de cette rubrique mhm. bu ñuy découvrir loo en profondeur li nga xamante ni moom mooy ay bërëb yi ñuy faral di dégg mais xamuñu fan la ñu soxee ko ak di mel donc c'est toujours très important ñuy ñuy jàpp yenn éléments yu mel nii langue de barbarie nag mhm. je pense que bon pour beaucoup de nos téléspectateurs am nañ ci lu leen leen gën a lu leen puis le phénomène que qu'a qu'a qu'a tracé Malick Thiandoum mi nga xamante ne ñaari ndox ñaari cours d'eau yu daje te du te du euh, ñu mélangé woon voilà du ñu jaxasoo et puis c'est c'est c'est quelque chose de phénoménal uh-huh. euh, voilà comme comme d'habitude on, on exhorte on, euh, est, on ouais. exhorte les gens à aller ouais. visiter cet endroit c'est voilà. on est on est séduit merci mm. beaucoup Ousseynou euh, Diop ak Habib Seck ñoom la ñu àndaloon ci Chérif moo nekk si ginnaaw di ma jaxase ngeen baal ma <laughs> Chérif moo nekk di ma jaxase Chérif loo bëgg a wax ci langue de barbarie foofu nga taxaw dafa sori yow tamit dañ lay bàyyi ñu fekk la ci beneen studio ñu def li nga xam ne moom mooy yéenekaay yi nekk à peu près